mouvement Siggi jot ginnaw tay tey moy 30 juillet 2017 daan nga bakku ci bir dekk bi né au soir du 30 daañu fête victoire tay ñu ngi fête victoire bu gëna reuy ci histoire politique wu Thiès parce que centre Iba Katiba ñëpp xam nañ ni fukki at ak juroom pouvoir mosu am lu ëpp ñaat téeméeri voix tay ñu gis ni centre la bo xam ne ko raflé ak yenen centre ci bir Thiès ñu gis ni tay sa loxo ba nga créer ce mouvement rek gis nañ ni tay soppi ci amna manam lañ doon wax changement renforcé

Euh, mouvement bi damay liggéey ci sama base liggéey ci sama wa koñ liggéey ci DVF donc tay ku xol centre bi ma voté centre ib Katiba depuis 15 ans opposition moom moo fay gagner, depuis 15 ans Idriss Seck moom moo fay gagner tay Idriss Seck am na ñoo xamante ay kangam yu mat yu mak samp na na len fi ci sama koñ donc ñoom il nous battait largement au centre Ibou Katiba donc tey liggéey bu am solo bi bi bi ma def. sa liggéey boobu dama ko def avant maa def politique man dama fonk sama waa gox dama fonk samay dëkkandoo dama fonk waa kees di leen yàgg jàppale di leen yàgg dimbali donc tey ba demee ba gis ni le président de la république Macky Sall war naa ko mën na jàppale dama ñëw waxtaan ak sama askan bi waxtaan ak sama askan ñoom ñëpp tey ku xool bayaal xuj bajaan xool li ko war yëpp ñëpp ay réew mi la la ñu woon ñëpp Idrissa Seck la la la ñu àndaloon mais tey bi ma jógee ñoom ñëpp ànd ak man li li liggéey mu nekk nag ànd bu dëggu parce que tey ku gis résultat yi ñu am école Iba ba war na ni man am naa baas wane a na ni sama waa base euh, sopp nañ ma bëgg na nañ ma te bëgg yëpp ànd dëggu la parce que maa ngi leen di taxawu maa ngi leen di jàppale di di wax ni tay ties résultat yi fépp fi nga xamanteni les résultats sont favorables le mouvement Siggi te teg na fa loxom parce que ñun fépp pour la ñu am base fépp lañu am ay militants ak ay sympathisants donc tay buñ ñu analyse analyse écart bi wàññeeku ko si yeneen 60 yi nga xamante opposition da doon battre largement tay mouvement Sigi bi bi bi bi taxaw réduire écart bi te te it loolu aussi ñu ngi ciy sant tous les leaders de l'APR donc ñoom def nañ si si liggéey bu am solo man bi nek nekk ci ci wàllu es maa ngi remercier à passant sama sœur ndey awa mbay ma moom on a travailler la main dans la main que bataille tey moulin a am une large victoire à la Cité Balabé parce que man euh, Cité Balabé dama fa bok dama fa liguey dama fa am ay donc tay eh, eh, écart yi am yëpp bureau de vote yi nga xamanté ni yep xëy nañ ko largement le mouvement si jonne jonne ne fa un rôle important le rôle moyen ñun am ben engagement boo xamante ni dañ ko taxaw wax ko suñu engagement c'est un contrat avec avec la population ñu xaar kenn état moyen kenn ñu ñoo jël propre moyen depuis presque six mois di liggéey liggéey bu am solo parce que ñun motivation nit nit ñu ko ku bëgg a Thiès ku bëgg a avancer il faut tourner le dos à l'opposition ñi ñi nga ne lañ fi ñuy on a fait un travail extraordinaire depuis lors ñu ngi ci kër yi ci gox je pense que le résultat tay bima am centre de vote et depuis 15 ans kenn mësu fi gagné gagner ma avec un écart si important donc là je pense qu'on on a fait un travail donc donc mais euh, ni le travail le travail le travail vient de commencer donc donc on va continuer sur ce, ce, lancer-là pour nous confirmer. Parce que je pense que le mouvement Sigui, c'est un mouvement à neuf pas négliger parce que c'est une, une, nouvelle forme de politique. Il y a un renouveau politique qui est né à Thiès. Donc, l'eau nous nous ko nous nous nous encore di ni euh, tous les leaders de la coalition encore remercier parce que meeting de clôture bi ma fi def ñom ñew nañ reconnaître liguey bi am solo bo xam ne man man te ni lii donc li la il faut la coalition la coalition de toutes les forces ñu mën wolo parce que Thiès c'est pas facile donc tey lii ñu lii ñu fi am sag ñun ya ya ya yaakaaruñu ko woon mais il faut qu'on redouble nos efforts ñëpp ñëw ñu taxawaat leader yëpp nekk benn àndandoo am. tolé parce que ñun suñu ambition moi, falat le président Macky Sall au présidentiel de 2019 C'est loolu maa ngi lancer un appel au président de la République ne ko ñun signer un contrat alliance pour son élection au premier tour au présidentiel de 2019 donc nous nag tey li wax rek le mouvement c'est c'est c'est si géej duñu bàkku ñun ce moo nous ñor Thiès ce bëgg du un président comme le président Macky Sall

mu mu mu mu retourné ne leen ko toppatoo askan bi taxawu askan bi donc je pense que loolu dina nekk loo xamante ne ni dinañu gën a motiver pour ñu mën a renforcer pour les prochaines séances présidentielles en 2019